alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliima mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu mas naa dégg lu mel ni sikkal gi ñuy faral di def ci diggante murit ak tiijaan sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu ne leen na ngeen a mel ni yahuud yi ak nasaraan yi loolu ngeen di def ñoo koy def siiw na xëy na mooy wa qaalat alyahuudu laysat annasaara ala cheyin wa qaalat annasaara laysat alyahuudu ala cheyin sunu boroom it wax na ne laa yasxar qawmun min qawmin bu kenn ree kenn defe ne moo ko gën ba tey sëriñ Tuuba qaadal ca jawharu nafiis wa kullu man yansur fawqahu alkilaab fal kalbu xayru minhu duunahu tiyaab képp ku jàpp ne moo gën ab xaj fekk na booba xaj ba moo ko gën wallaahu aalam sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo nee nañu dafay bëggoon a jaar ba jàll te kenn du ko xam sunu boroom subhaanahu wa taala moo ko xamal ne daa am cër yoo xam ne seeni boroom ci yow lañu koy jote wér na wallaahu aalam na sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal